salaamaaleykum mbokka yi ma déglu di ma seetaan greetings in the spirit of Gambianism salaamaaleykum mbaadiñ jiibee laal képp ku ñuy seetaan fu ñu waay di dégloo rekk ci ñenente ko ñu àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ah, ñoo ngi leen ay béggee di leen ziyaare fii ci Gambian Talents Promotion Uh, it's a happy day for us. It's a happy moment for us at Gambian Talents. Lately, if you are watching closely, you will see a lot of changes taking place here on this platform. You will see a lot of progress and development being made. Um, what are we doing? Empowering our people. What are we doing? Celebrating our people. What are we doing? Recognizing our people. And what are we doing? Giving our people the rightful places and dues that they deserve. Um, yàlla definitely, doing nag du ngeen ñu a lot especially Manpa Usman uh, coming on air and talking and having the shows that I used to have together with the team members. A lot of things contribute to Lolo because we are growing as an institution and we are empowering a lot of people. ku xamul fi nga jëm nag nga fi nga realistically we have been doing what we are doing for the past 12, 13 years. Undoubtedly, the Gambian Talents platform, especially the radio, is the first online Gambian radio to the best of our knowledge. This is a fact. One like Coach Pasamba Jau can be a witness to that back in 2005 2006 when we had just formed the Gambian Talents platform. I used to host a live radio show called the Gambian Talent Show together with Halima.com, the Senegalese um, uh, online platform, who used to be our partners. They have grown. Settled Nengbuyagga move on nañ and are doing a lot of things within Senegal. Those days, Halima and Seneweb were going tete-a-tete. Eventually, so many other online platforms followed within Senegal. So many of them. te loolu kat sant on our part we continue to struggle 12 years, 13 years is not 12 days. And that is how much this platform has been struggling to be on our feet. ñuy goto goto nag gëm li ñoo def bugga li ñoo def suñu réew ñor ñu ba ñu continuer di ko def am gàllankoor yu bari am xaaxaan yu bari ci kaw yoon bi ñuy stombul di joga ka daanu di daanu ka jog di joga ka daanu di daanu ka jog until we get to where we are today liggéey bi nag ñëw àgg foo xam ne now a lot has been taken by everybody based on lima def nii when facebook live came into being everybody wants to become a journalist. Everybody wants to become a presenter. Everybody has their own talk show just by going live. waaye liggéey bu ne nag dafa am cër te dafa am ñu ko moom ni ko imam yi dee waxee rek maa koo kóod nag ci lu bari ne he takes offense in ku dem ci internet bi ngene da nga google alquran jàng sa ñaar ñetti aya ñenenti aya, mokal ko karam ko commencé di khutba wala nga dem ci na juma ñu lafa la fa ay few ayas wala nga jël bug riidal sa bop rek tax nga commencé di si khutba di war ni ñi japp si lolu ne yaay waja ñu la ooyee cheikh cheikh cheikh cheikh ngay uyo cheikh foog ne yaay waja dafa outé ak ñom ñi nga xamné dañ li ñuy karanta si sosé muy talibé ya gi nga xamné ñom dañ ko liggéey dem ci dara ji ñu jox leen pot ñu dem yalwaani dem ci dara ji ñu xey gonta ngoon suba tel dem taxani matta gonta ngoon dem taxani matta ñoo indi taal loolu ñu jël alwa bindal leen si téye yar téye banta di leen bàcca di leen dóor ñu tarbiyu seen sëriñ daara yi def seen research daj lu ne ci xam-xam boobu ñu war ko koo yu nag keneen jógee fele ñëw rekk bu gëjal gëjël yëfi doyadal ko soofal ko ne moom du allow loolu and he takes offense in di the same thing nag comme ni ma leen ko waxee 13 years ñu ne ci liggéey bi di def yu bari di ci gooto gooto yàlla def yu bari ñëw yomba with technology with Facebook live ñëpp ñoo bugg a journalist ñëpp ñoo bugg a nekk presenters ñëpp ñoo bugg a def li ñoo def soo xamee li nga def nag mun ko su boobaa nga soppi doxin bàyyi leen comme ni ma koy waxee saa su nekk gambien si ak mun a toppandoor ñun si suñ jëmmi bopp serve as copycats lu waay def ñu toppandoor bu tobaski gi paasee def naa ci programme li ko inspire ma wax ko ñu bari jël loolu rawatina ñuy yëngatu ci media bi ne ñoom laa ci gaaruwaale ñoom laay waxal and stuff fekk déedéet li inspire woon programme boobu mooy tubaski gi nga xam ne ñu ngi ci jógee Yaya Jammeh doon jaay xar foofu noonu lu bari mu génn fa rek ñépp walla ñu bari ne param dugga ci njaayam xar jël loolu def ko muy seen téere ñépp daw dem Sénégal jëndi xar mu ñëw nag they made the prices so expensive because they had no experience in it they didn't do any research gis nañ rek ne tabaski ni ñi de ñoo soxla xar ñu foog ne mun ngaa dem jëndi xar ñëw jaayee ko any amount ñëw jaayee ko any amount jaaykati xar yi bari ci dëkk bi guess what one seen xar yi jarut xar yi late tabaski gi jee xar yi ne gàññe ci réew mi because we don't do proper research bu yàggut nii rek laa doon wax ak suma yaay Yaasin Diallo of yasin Kisin mu joytu the same thing how she's been copied by people and individuals anyhow ci recipe yi nga xam ne mu ngi create ñun ñu ñëw def issues, def i programmes def li ñoo def guy yi ñoo copy ko exactly the way it is who create, innovate, come up with anything keneen ay jógee fële ñëw jéem laa overtake ci li nga xam ne moom nga create nu mu gën a gaawee because moom am na one or two connections wala few lifin mu ñëw yàkkamti génne yow sa idea bi jël ko su see twist it benn ñaar la see twist wala du ko twist dem yàkkamti ko pour produce ko at the end of the day do do justice to whatever you wanted to do the love is not the same the research you did on it is not the same as what they did li ci xam xamuñ ko ci passion bi ci am ni ko buggee ak ni ko gëmee wuñ ko wuñ ko so it's not going to be the same therefore they will give a mediocre work they will produce mediocre work and mediocre productions and that would make our country being insulted that would make our country being looked down upon ñu xool ñu ne gambien si munuñ dara gambien si amuñ xorom gambien si munuñoo def dara gambien si duñ commencé dara jekkali ko gambien si lii gambien si lii gambien si te fekk ñu munut randu wuñ abal ñu mun ñu teg caa gérer affaire ci doxal yëf yi and this runs across the board in our country muy feebar bu rëy ma ne ñi munut randu wuñ poussé jox ñi mun lenge yi ñu doxal ñi munut joxuñ ñi mun ñu doxal kon muy loo xam ne nag lu am solo la ñu war ko bàyyi xel as a community suñ dëkka waxuma ne duñ dem waaye dina yàgga de suñ defee suñ programme maak Iva Sarr ne lu tax Gambie du dem indi topic gars yi ŋaañañu ceeñ leen tori show bi seen programme bi amin li ngeen faa waxtaan lu baax la waaye tur bi rafetul ceeñ leen ko ñun dañ laajte question ne lan moo tax Gambie du dem te wig bu nekk Gambien ci def tojaange goo xam ne mooy tax ba réew mi du dem ñuy waxtaanee tojaange yooyu xanaa beneen génération waaye du ñun suñ génération suñ génération yi doom sax fooguma ne dinañ am loolu because suñ mindset yeeg suñ mentalité si lañ war a change as a people We've been crying for a change of government. For years, I've been saying this on our platform on Gambian talents. That we think Yaya Jame was the Gambia's problem. He wasn't the Gambia's problem. He was a great chunk of the problem. I had been agreeing to this. We have been agreeing to this. But Yaya Jame wasn't the only problem. He was a great chunk of it. But ñun ñooy suñ problème yi boppa suñ jikko yi lañ war a wecc ci yu bari fee defuñ ko suñ dëkk bi du dem kanam suñ dëkk bi du gaaw a dem kanam nañ leen raxas xol yi ñu wecci jikko yi ku ne ñu jox ko lu moom ma fàttaliwaat leen waxi baylaat ji ma suma boos daan wax bi ma jàng kapinta bi ma nekkee xale su dugal ma may jàng kapinta suma boos bi dama toog rek mu log làmmiñam bi di wëy baylaat nee na loo xamut bu ko wax loo moomut ba ko fa loo gisut gumba si lii ndigal ku ci wéy ba suñu borom nangu la rek nga texe loo xamut rek bu ko mus di wax waaye Gambien si ak ñun ñoo bari wax wax rek la ñuy def di jëf lu ndaw wax rek la ñuy def di jëf ndaw jamono jiñ toll nii bi social media amee bu Facebook amee bu Instagram amee ak Viber ak WhatsApp si lañ toj réew mi wax rekk lañuy def every day bu ees from one to the other from one to the other lii be For how long will we continue to act uncivilized? For how long will we continue to embarrass our country? For how long will we continue to victimize ourselves? This is Gambia It's about time ñu ibbi suñ bët yi ñiy wax ne dañ am platform, di saga, di xasante di nganyante. li ngeen a def du feem bàyyi leen ko yaaxante 24 7 man mane du feem bul ekkati sa téléphone dem live just because you can before you go think about it what am I going to say do I have an agenda do I have a plan ndax luy eddaate la ndax luy yàq la ndax luy defar la ban njëriñ la ci askan bi amee ban njëriñ la ci doomi aadama amee it's about time we fix our country dañ yàgg a toog dañ yàgg toog we have lost a whole generation Sundeka has lost a whole generation. And it's going to take time to build that generation. Jamunaji should have been time for us to come together as a people and work and try to fix our country and not be doing the things that we are doing, especially on social media, and propelling anger, propelling tribalism, pushing all this negative energy uh, that we are bringing on. Do fame. The man mane bundok patasut. nañ jox ku ne lu moom ku ne nañ ko jox gëddam mu doxal lim war a doxal give honor to whom honor is due give Caesar what belongs to Caesar fee defuñ ko dinañ saxaar rekk waaye duñ tàkk ñu bàyyi di lorante ñu jox ay palaas ci réew mi ñi am capability pour muna def dara pour yóbbu askan wi kanam nañ ko jéem a def te yàlla tax te yàlla tax bu yàlla dénka dara bula askan wi dénka dara muy politician nga or whatever you are and you decide to use that to your advantage and not take care of the people's needs ñu seetaat lii bu baax a baax ñu seetaat ko bu baax a baax bu la yàlla jox excuse me an opportunity pour nga mun a jàppale askan wi pour nga mun change people's life in a positive way and you refuse to do so al nga ñaama sa sa sabatinde nga tuwa ñaama nga kaa ñaama nga foa ñaama yàlla gëmmu nelawut te du jawale. yàlla gëmmu nelawut te du jawale. du teg benn bakkan lum àttanut he gives people what they deserve ñun Gambians the type of leaders we are getting is what we deserve depends on our level of thinking, our thinking capacities. Depends on ling am si suñ xol yi suñ kéene suñ éene si suñ biir xol yi liñ suñ we don't want to push far we don't want to recognize each other we don't want to uplift each other we believe in bringing each other down. We believe in pushing each other to go down. It's not right and it's not okay. It is not right and it is not okay. mel as a people as a society tànka and we all have a role to play in making our country the paradise of the world kenn duñu ñëw di ñu ko nañ toog di ŋàññante di saagante di xasante di wishante each other bad ak négative let's live in a crab and barrel uh, syndrome di xëccante rek ay crab ñànkaar yu nekk ci biir am barigo wala paan su kii demee ba korti korti di éeg éeg éeg katabu ci lifin dem ba éeg ba foog ne àgg na rek ki ci ronam xëcca rek wàccee mu daanu keneen igaat igaat igaat ig ba si kanam rek ki ci ronam rek mu daanuwaat ba kañ lañoo loolu ba kañ if you are one of those people that is bent on destroying the country that is bent on portraying a negative image of the country whether time jawara nga ko def time yaaya jame nga ko def time adama baro nga ko def you are not one of us Maripitat Lulu. If you are one of those people that is bent on portraying the negative image of the country, it doesn't matter at what time you did it, on whose era or in whose generation you did it, you are not one of us. Man Mangla denounce. It's citizenship. It's Gambianism. Mangla denounce. God, let us try to be professional. It's better late than never. You want you Gambian Talents. It's been a minute. We changed a lot of things we have been doing. Choppy Like Denzel Washington says, you want something you never have, you have to do something you have never done before. I'm proud once again to reassure you guys that the Gambian Plan Talent Platform is here to stay. We have transformed it into a non-profit charity um, uh, private uh, public media institution whose mandate is to inform, educate, and entertain Gambians using our talents, which is what we've been doing for the past 13 years. We take pride in uplifting our people. In 2008, we organized the first Gambian Talents Award with 18 different categories in the area of sports, in the area of music, in the area of um, um, um, um, uh, uh, media ak nga xam ñu théâtre nekk ci art performing art 2008 together with Soul Sounds of Arts and I'm glad to announce that that award is about to come back since then we have achieved and accomplished a lot helped and assisted and worked with a lot of Gambian talents keyboard acting, promoting our culture and otherwise. Ask the Gambian musicians, the singer, the Freaky the Abu Anfafas, the Pa Omar Jacks, the Dr. Olugandas, you name it. We created a lot of platforms for these people to be known, for these people to have the opportunity to travel abroad. A lot of these people now are actually even not based in the Gambia we contributed a lot to their careers towards exposing their content because there was no such platform to promote Gambian talents and Gambian culture back in the days. People didn't have Niche diaspora, they didn't have means of looking at or seeing content or Gambian music or hearing it or uh, whatsoever. I remember the first year I brought Singate Freaky Joe to Atlanta si July 4th. Neil and Toge won the hall. Everybody was looking at him. Who is this guy? What is he doing? It took me a long time to be able to convince the Ajera executive at the time, to be able to convince the Gambian organization in DC, pour ñu indi si my partner at ñoom, to be able to convince the Gambian organization in Seattle gi ma dëkka all the other places that we went to. It was very tough, but thank God now moo two years ago bi ma demee Atlanta si July 4 bi ba by, baa bu ñëw perform ma gis the reaction of the people versus how people reacted to Singate in 2006 I was crying dama jooy si stage bi jooy mbégte because li ma doon ñaaxtu li ma doon ut gis naa ko not only Singate di Pa Omar Jacks di am Abu and Fafas di nansi Nance ñu bari dañ ñëw ñu create de platform for them ñuy perform Gambian si di leen ridicule di leen ree di leen xool bàyyi baa bu ñëw war a egg si stage bi ñu am that excitement ñëpp ñëw ndiiraan bi ñëw toppa ko di def ak moom loolu ñun victory la foros us because loolu lañ doon ñaan pour ñu accept suñ nit yi ñu gis koo xam ne dafa lifin ba den what that has to do with to a great extent is lim ànd ak Pape di ko firnde dem na fi Angleterre how was the reaction bi mu ñëwee ba toj America moo Pape Diouf dafa dem Angleterre how was that reaction so kon ñu war a bàyyi suñ xel jàppale suñ askan jàppale suñuy nit ñu bàyyi suñ soxlaa dara si suñ nit ne mu def ko for free suñ soxlaa dara the same thing wala ñuy work on a project soxla gambien def dara soxla yeneen nationalité def dara ci ñun ñi nga xam ne ñu ngi dëkk diaspora spécially ñu dem ci kooku bokk ci beneen national beneen dëkk fay ñu lépp lu ñu leen war a fay léppa lu ñu laaj ñu ñëw si Gambian bi ne la li ñu war a defal def ko for free for love for country is that how you love your country by bringing everybody that is from your country down by having everybody that's from your country nga mun leen a jàppale pour ñu dem kanam pour ñu def dara pour li ñoo def mu dem kanam yow nga ñëw ne nañ la jox liñ jox for free yóbbuwul dëkk kanam because the individual citizens have to um, be empowered the individual citizens have to progress they have to prosper for the country to progress and equally go forward because the people are the country without the people there is no country any place that's not inhabited by human beings is not a country ñi ñu dëkka barab ñoo tax ñu ooyee béréb boobu dëkka muy réew kon nañ leen di upliftante soo mu nee sign kayit bu ndaw pour change somebody's life in a positive way muy ci alal muy ci xam-xam muy ci whatever su dee sign benn kayit mooy tax nit life am change ngela sign ko te bu ko ci fitnal te bu ko ci gundu xatal te bu ko ci jox benn condition sans condition su fekkee ne nga jël sa téléphone make a quick call mooy change somebody's life to the better for the better please do so without jox boromam a headache wala the running around you are not doing them a favor rawatina su fekkee ne public officer nga su fekkee ne nga toog si meeting waxtaan ak ay people change lives is what you have to do. Please go ahead and do so. When they buñ de the fitna when they give each other the running around di ñaax ñépp nag ku nekk war gis sa ci suma video bi and if you do shareal video bi lu am solo la dinaa ñëw subsequently dinañ ñëw ñu wan leen yu bari yoo xam ne ñu ngi koo def lately wax naa leen ne su new mandate is to inform educate and entertain Gambians through our talents and also complement government and private sector development initiatives yu bari ñu koo def ñu ngi commencé a new programme an internship programme where we train young people students that are going to the University of the Gambia that are attending some tertiary institutions some backway Britannies ñoo xam ne dañ dem backway ñu nekk for Libya I benn at ñaari at ñetti at ñu téye leen len leen foofu teglen for teg leen fa Ni fitna si watiri umi. some of them ñu ngi press as we speak we have four of those people teaching studio be in Gambia who are actually learning skills we have young people that drop out of school for different reasons ñii seen parents yi mënuñ leen woon a fayal ñii ñoom ñoo dëgëroon seen boppa seen boppa ñu filoon ne they were on top of the world ñu dem ba réalise ko xam ne amuñ place ci society bi mënuñoo dem benn tertiary institution mënu leen a accept because amuñ qualification si du university bi du yeneen tertiary institution si ñu xam ne kat mënuñoo def anything with their lives ñu ngi toog ñu jigéen ñi ñooy suñ bi naan ci kër yi ñoom lañ bàyyi ñuy toggal di ñu amin raxasal di fóot ci kër yi suñ defee loolu ba pare amuñ luñ def lu ba lu nekk ci mbedd mi ñu góor ñi ñooy toog ci mbedd mi di naan ataaya ñu góor ñi ñoo doon jël baakuwe bi dem ci baakuwe bi di def yu bari ñu góor ñi ñooy dugg ci mbedd mi di dem di sàcca di tappale di agressé nit ñi we give those people a platform pour ñu redeem seen life pour ñu turn ko around pour ñëw mun a bokkaat ci society we are teaching them journalism to become journalists and we will introduce them to you accordingly we are teaching them accounting We are teaching them to be public speakers. We are teaching them to be web developers and web designers. We are teaching them to be graphic designers. We are teaching them to be photographers and videographers. This is the new Gambian talents. Lolo ñu amunchi, Ben dimbal, zero budget du ndimbal gu jógee gum ci nguur du ndimbal gu jógee gum ci individual du ndimbal gu jógee gum ci benn institution we can do it by mobilizing resources by mobilizing people and by using our own talents and the little that is available to us so far that is how you build a country ku nekk nga seet lan nga mun a def along the way nag su la si ndimbal fekkee nga jël ngeen continue def li ngeen a def that is the new Gambian talents we will show them to They are willing to share their stories. You will see them. You will see them. Just starting with our accountant Gwinjai, who we hired as an accountant, Munyo Purneka accountant. Since says within a few months, she's learning skills. We do eh, production of t-shirts. We do production of coffee mugs at you, you know, mbahana and the like. Customize. she came as an accountant already she's learned that printing skills xale yi ma leen wax ni jógee ci back way bi Nguy is already teaching them some of these skills and they are producing it from our studios in the Gambia as a result prevent nañ suñ xale yu jigéen yi from ñu nekk ay cagat yi tamambalu ci mbedd mi walla ñu dugg ci kër yi di fen di tappale di njaalo prevent nañ suñ xale yu góor yi from ñu nekk ay sàccakat ñu ngee prevent crime rate si dëkk bi security risk dëkk bi am ci jamono ji bari na poverty rate baa ngi bari nit ñaa ngi sonna coono dinañ leen indiwaat ci loolu taxuñoo jóg di leen jox just a few background of what Gambian Talents is all about and what we are doing ñu seet naka lañoo def a few weeks ago less than two months ngeen gis ñu awoot fi kitaabu di comedian suñ comédien yi soose bi nga xam ne na man dinka comédien o men ka théâtre o ke ñun ñëpp ñu ko xool di ko enjoy kitaabu is so funny kitaabu is so good he preaches positive messages keep it up keep it up according to kitaabu ak oh boy dégg nañ keep it up ba xubu daas dégg nañ keep it up ba xubu daas su doon keep mooy feesal seen poos yi seen poos yi fees na bu yàgga this guy cannot even afford a mini recorder ak few cameras ak gadget yi nga xam ne moom la soxla pour mun a produce suusam yi di yalwaan for years Gambian companies who can endorse him gis nañ ne am na mbooloo ñu mun koo endorse jox ko xaalis bu takk boo xam ne moom ak ñi moo liggéeyal dinañ spécialise si loolu def ko full time job waaye mooy tax ñu commencé dara ba mu yàgg ñu bàyyi ko because of responsibility nga bàyyi ko because am nga jabar nga bàyyi ko because am nga doom nga bàyyi ko because yaa ngi am yaay ak doom ak ñeneen ñu la yaakaar pour nga jàppale leen toppatoo leen mënuloo koo def am doom yu war a dem school seen school weer dee nga war a fay seen mënuloo koo fay nga wara a joxe looñ mënuloo loko def sa jabar xol la ngubi la ne la ni nga useless nekkal fi di wess sa time rek su yagge da nga bay ñu ne gambien ndaysan aka non li wala gambien bi du commencer dara jekali ko naka la koo jekkalee su fekke ne yow wu loko you have the potential to do anything to gambian companies jappale wu ñu melni kitabu he doesn't have endorsements muy li am solo nag ñu war koo bàyyi xel li am solo ñu war koo bàyyi xel kon ñu toppa yu mel noonu ñu góor góorlu si yu mel noonu we gave Githabu ten thousand dollars jox ko an ultra mini recorder an ultra mini recorder which cost a hundred and sixty dollars jógee ci defar ko a music video that cost about twenty thousand dollars this is how you touch people's life it boosts his status gave him publicity and everything this is how we boost people's lives and this is not the first time we have done it with the Musangom family to establish the Musangom Tribute Committee after he passed away to maintain the legend's legacy and also help his family financially. And the Musangom Guinea Arunakte, we have given his family over $70,000. Bobo Aktei. Go and ask them. We touch lives in a positive way. These are people that contribute so much to the development of our country. And we should not just watch them perish. We should not just watch them go in vain. We should not watch our talents just quit whatever they are doing just because they are not making enough or making anything to be able to sustain themselves. And these are a bunch of people, if you open their hearts, all you see there is love for country and they are doing the things that they do because they love their country. And therefore, we need to be able to recognize our people. Unless and until Gambians learn to recognize and respect and celebrate our legends, unless and until we learn to appreciate our elders, unless and until we learn to respect and celebrate our religious leaders, unless and until we learn to celebrate our um, um, um, um, teachers, we will never go far. mag dañ koo ceral respect ko toppatoo ko mag dafa yërëm xale jàngal ko gàgganti ko wan ko yoon na mag ñi jàppale xale yi leen na xale yi respect mag ñi paree jànga si ñoom ñu taataan suñ dëkka mun a dem kanam and this is one thing we don't do te duñ gaaw a dem fee commencé wuñ suñ kilifa yi ñu leen a toppatoo fee commencé wuñ magi dëkk bi ñu leen a respect fee commencé wuñ borom xam-xam yi ci réew mi ñu jox leen seen cër suñ dëkk du dem fenn suñ njiit yi ñu respect leen bi fa jawar a nekkee ñu ko caxat caxatee caxat caxatee caxat caxatee jawara génn yaaya jamme ñëw ñu tiye ko di caxat-caxatee caxat-caxatee léegi Adama Barrow toog ñu téye ko di caxat-caxatee caxat-caxatee suñ kilifa diinay respectuñ suñ kilifa aaday respectuñ leen suñ boroom xam-xam yi respectuñ leen bekkañ mag dañ koo cëral soo ko cëralee rek yàlla cëral la kon buñ di fàtte démba te ñi nga xam ne jàppale nañ ñu regardless of what come to America it doesn't matter what George W. Bush did during his time he is an ex-president of America and will be respected as such if there is anywhere he broke the law the law will take its course on him and he will have to pay the price and serve whatever he needs to serve if he needs to answer to any commission, if he needs to go to jail for it, if he needs to do probation, if he has to do time, whatever the law says that he has broken, whatever the consequence and the penalty is, he will do that. But that will be left to the law. There are people that are paid to do that job. Let's allow people pour ñu def seen liggéey ñu bàyyi digital, jiital ay nit di leen fakastal in the case of former President Yahya Jammeh, we have a commission of inquiry. The next minute, some people will be like, I can even see the numbers going down just because I mentioned Yahya Jammeh's name. Yes, regardless of what, he is an ex-president of the Gambia, and that cannot be erased in the history books of the Gambia, regardless of what. Regardless of what he did. There are people responsible for prosecuting. There are people responsible for investigating. There are people responsible for bringing um, culprits and, and, and uh, perpetrators of heinous crimes into justice. To justice. Let's allow them to do their work it's not my place as an ordinary citizen to say what happens to Yaya Jammeh. It's not your place and the like. Let them do their investigation, their findings, and do what the law tells them to do. And eventually they will come up with whatever needs to happen to Yaya Jammeh. Not for you and I to come up with. And this is very important. Why? Until then, regardless of what he is an ex-president of the Gambia, and we cannot erase that. History cannot be erased. te li firnde loolu li tax wax part de is you go to this past independence celebration Yaya Jammeh's name or what he did was barely mentioned they hail Jawara when Yaya Jammeh came dafa effacer Jawara comme Jawara defout fi dara comme defou fi dara and that is not okay Adama barokim came and wants to wipe out Yaya Jammeh's legacy both of these great leaders, both of these leaders have done some great things for the country, both Jawara and Yaya Jammeh, and this is a fact. We cannot deny that fact unless we want to, I mean, deceive ourselves. They have also wronged the country and did some very expensive mistakes. And Yaya Jammeh's time, I nobody supporting him. li ñoo def we just open up the studio. We never had that opportunity to open the studio in Gambia. I never went to Gambia in 13 years. I just went there last year. Yep, you even you couldn't support your they know that okay, well, I'm bopa, momun chen bopa. And that alone is very important. A lot of us are able to do the things we do today because of the new Gambia. To ya jame affaire moy lolu, but dafa am lo xamne ñoo xam ne ñoo responsible to actually um, um, um, um, um, um analyze these crimes to actually uh, do their investigations their findings and, and, and, and, and do what the law says and until then we need to leave things alone lu wax nag du neex ñu bari pour ñu dégg ko su loolu weesoo ba tey si recognition gi dañ leen di célébrer luñ moom dañ leen di célébrer suñ kilifa yeeg yooyu moo tax tey ñun ñu ñëw at Gambian Talents pour recognize suñ papa pour xàmmee suñ papa pour jàppale suñ papa alaaji Ibrahima Ba Mama Koto nga is a true living legend somebody that has touched lives somebody that has contributed a lot to the development of the Gambia in all walks of life somebody that has never been recognized publicly te yàlla nag dafa wax ne al jazaahul ihsaan wa ilal ihsaan there is no reward for good but good olof njaay ci boppam ñoo wax ne ku la defal lu baax soo ko waxut suy lim ay noon noonam boole la ci di old power has tried for the Gambia 86 years ba tey he is doing what he does he loves it media la bugg ci xolam jàppale askan wi la bugg ci xolam waxtaan ak askan wi gàgganti askan wi la bugg ci xolam this is somebody that hails from Makati def yu bari pour réew mi jàppale ñu bari ci réew mi jaar fu bari xam lu bari fekkee lu bari gestu lu bari mun a waxtaan ak askan wi teg ko ci diina teg ko ci dëgga teg ko ci aada ak cosaan ak lim fekkee muy def programme bi ñoo wax meññanta fii ci Gambian Talent Radio last week Independence Week bi ma am ak moom show ñu waxtaanee prix Independence pa bi di ñu nettali lépp lu mu fekkee bi ñoo approche Jawara di ko jox am am am am ah, leadership bi PPP ni PPP njëkk a tudda jàngul angale but he remembers these things mu jàngal ñu ne fala la njëkk a déggee di word quantity ak quality ne biñ ne dañoo foom PPP gars yi toog ñu bari xamuñ am am am am naka la def kuñ jox jëf yi mu lenge yi nga decline ko they had nobody to lead bañ approach Jawara wax ko ko mu ne du ko def ne goro Jawara moo dugg ak moom ci néeg waxtaan ak moom ne ko ñii dañ am si yow jaakaar Jawara ne ko wel politique bi ni ma ko gisee ñii yofi waa Banjul lii ak lii mu ne ko fii yofi waa Banjul amu fi man ci dex gi la joge mu ne ko jëlal dañ la yaakaar jëlal am nga xam-xam bi am nga sañ-sañ bi war ngaa mun a def liggéey bi yaakaar naa ne di ko mun a suñ la ko joxee mu ne foofu la ko waxee ne politics is not about quality is about quantity mu dem gestu ko paa bi moo ñuy nettali lii mu toog wax ñu union jaag bi bés bi nga xamee ne February 17 jot na the eve of the independence and how it happened and what happened in Gambia that day on February 18 how it was celebrated before loolu naka la région si daan dundee ñi ci deex gi ak ñi ci teeru bi mu wax ñu pre independence in the 40s in the 50s mu daj lu bari nag ñun ndaw ñi ñu war see jàngee mu ne ma talaali bar la dem jende kilo guru fos njaayam kilo guru, la commencé di jaay jaay guru, am ay dem bem gamu mu commencé di yokka kilo yi dem bem yàgga mu dem be am pañem guróom dem bem yàgga mu am tabulam pundau ndaw di jaay guru, ak di bagage yu ndaw mu mujjé am botegam bu famous Banjul di jaay yire ñu bari xam alaaji Ibrahima to ci lolu jangat pour ndaw yi when you do business this is a man that doesn't have formal education motax may wax gambien ci ñu bari si ñun dama bugg def business dama bugg def business dama bugg def nangam dama bugg def nangam dama bugg dem school you want to wait till you have millions before you go to school you want to wait till you accomplish this till you accomplish that till you accomplish that you may never accomplish any of those So they nga tok di xaar before nga dem school nga tok wara a jabar ne man duma ma wala wara sey ne man duma ma dama bugg accomplish li dama bugg am le dama bugg am ya nge waste sa time you can start small ne kat yalla ko amé ak yala yalla ko amé te yu bari mun nga ko try and when you try this. these things, you will see it work. You start small and you start little and you grow into it. And you grow into it. Genuinely. Papi jangal na foofu. ñu si start business but you don't want to do anything seet correct? rek ñu nekk Banjul suñ la laje xaalis yow mu nekk fii ne dañ bëgg a start business ñaata lañ laa laaj thirty thousand fifty thousand hundred thousand two hundred thousand then nobody asks you for $5,000 or $10,000 to get started. So keep a kubugan if anything. Believe in yourself. Start small and grow into it. So they may be danu, dinga danu small. But so start a big, so a danu sa jella bidafa over meat. That's a tip that I learned from Alaji Ibrahim Mama Koto and his story. Dinga stumble along the way. Jafe jafe dinga am. du metti non ndax lu ndaw lo am so jele nga liggey sa profit instead of nga lekk nga jël profit bi investar ko into the business jël ci touti li ci bari nga investar ko into the business muy grow nonu nga def be taxaw nga jang in addition to that bakaw gim dëkka muy mama koto dama fa dem toga kilifa yi ñu wax jàkka ji nga xam ne moo ko def foofu ci jamono jooju kilifa yi keroog ma wax jeeg na kooku nekkat bi ñoo sampa jàkka jooju ñoom amuñ dara ñu ngi toxu si foofu noonu korget la woon alaaji Ibrahima ba moo dem jënd sementam alaaji Ibrahima ba moo dem jënd ay bagaasam indi ñoom ñu def seen doole ñu jël loolu tam sampa ko jumaa jooju man jullee naa fa maama koto daaw bi ma demee Gambia paa yi ñaanal ma ñaani xaas gërëm paa bi si suma kanam ñu bari wax lim leen jàppale foofu ma ne ma sàcc wax leen ne ma wax ak suma papa ku mel ne everybody mbay mu xamal ma ne paa ju baax waa ju baax moom ak ñoom papa Dawda Njaay nga xam ne ñooñ la daan àndal ne ma alaaji Ibrahima ba moom de lebal na ay nit xaalis ci réew mi fii ñoo xam ne kenn déggut leen kenn xamut leen kenn xamalut ko ko ñooñu suñ ko feyoon boram tey ñim lebal te gars yi feyuñ ko xaalisam ndekoon seet seetaatam sax duñ musa pooyaat this came from everybody mbay loolu la ma wax ci Mama Ibrahima Ba pour ñu tuddee ko koñ googu Mamakoto ne alaaji Ibrahima Mamakoto jël ko dàkkentale ko muy koñi Bakaw boobu there is a reason for it ma ne la ñim jàppale foofu ibbi fa boutique gis ne waa Bakaw yi dañ daan sonna di dem Serekunda di dem place yu bari pour dem lijjanti yu bari mu jël foofu ibbi fa boutique make life easy for the people of Mamakoto liñ daan war a daw dem ba Serekunda pour uti ko fa léegi they can buy it from Bakaw thus making life easy for the community and the society. We may take these things to be little, to be small. Not only did he open that store to make life easy for the community, he created employment for a few young people in the area, and of course, moom si boppam mu family si famille am instead of ñuy tambambalu di dem si mbedd mi comme ñun li ñoo def nii I mean am am am creating this platform for young people to come and excel and do the things that they need to do mu create employment opportunity jàppale waale boppam askanam another thing alaaji koto alaaji ibrahima koto dit Mane supreme islamic council bi form foom tey biñ foom tey nga xam ne ñu ngi ko coow ci def lu bari he has a big role that he played in the establishment of the supreme islamic council during its early days by securing funding not only with them, but even the people of Mamakoto, told me how Alhaji Ibn Abba Mamakoto was connected and was helping to go because of his connection with a lot of organizations internationally and locally. He was bringing a lot of things to develop Mamakoto. bañ agsi fi ñu agsi Supreme Islamic Council when it comes to media he has done a lot Programming many meññanta defni. mu njëkk ko koo soma Alfal. di waxtaan ak xale yi nga ñoy magi elek ndawi tay magi elek. di leen jox ideas di leen gaganti di leen wan yoon ci Gambia mu defar diggante yu bari ñu am testimony yu bari mu yaga address topics yu bari yo xam dafa jangal askan bi yo dafa jangal askan bi mané ala Ibrahima Mama tok liggéey na ci radio bi Gambia liggéey na ci tele bi last week bi ñoo def show bi Modou juuf GRTS kooku la wax ne mook Ismaila Mane ñoo ko jàngal lu bari he is 86 year old mut na ma grand pa Modou Diouf la wax ne moo ko jàngal lu bari mu oyofal boppam nag man ma diil ak moom Modou juuf wax ma ne su demaan ñëw def programme ñëw war a wax ne waaw gumba yi tey nangam mu ne ko déedéet moom Modou Diouf ne ko déedéet doo wax gumba soo nekkee si media di wax danga wàcc sa kàddu gi danga rafetal kàddu gi danga koo segga du ne loo xam nga wax ak waxinam bul wax gumbo waxal na ñu dul gis kon mooy loolu alaaji Ibrahima ba mama koto mu jàngee si loolu oyofal boppam te li Modou Diouf wax noonu man dinaa ko firndeel two years maa ngi def ak moom programme ci Gambian Talents nim mu commencé ki ñoo wax Sariyong Marong ci dëkk bi mu nekk moom a contact paa baa ngi ñëw ci réew mi nekk fi am lu bari lu moo wax loo xam ne mu ngi woon Gambia di def programme yi def ko ci radio bi def ko ci tele yi télé bi def ko ci radio station ci private ak public dem ba nga xam ne Sirif Keba nga xam ne Haydara am am am am Brufut ñëpp xam ko lu bari lu mu doon def kàddu famille Haydara Kunda ci loxoom moom alaaji Ibrahima Mamakoto lañ ko bàyyi woon Serif Keba du como Serif Keba Haydara du como pour mu jël kàddu famille am ak yu bari yoo xam ne ñu ngi ko doon def teg ko ci loxo alaaji Ibrahima Mamakoto that something am am am am he is somebody that was trustworthy pour ñu war koo jox that opportunity and of course it was in his hands Mujapale Nyonyo. ñooñu di làppatoo gaa yi Gambia mu successful April 10th and 11th he played a big role in killing the spirit and the negative energy between the security forces and the students The ay kàddu yi nga xam ne gaaral ci radio yi The ak through the media kookoy alaaji Ibrahima Mama Koto mu def yu bari nag ci réew mi ma ne mu ñëw toog Amerika njabootam gi yàlla def àdduna di dox bem ñëw toog Amerika namu dara nag alhamdulillah macha allah njabootam gi di ko jàppale di ko toppatoo di ko toppatoo 19 turandoor la am 19 turandoor mu tukki nag dem fu ne am teraanga bu ne waye liko ñor ci bir xolam bi moy mu waxtaan ak askan wi mu gaganti askan wi wan len yoon mu bëgg fu mu waxtaanee dëkk jah, ngi jax njabotam ji will not allow him pour mu dem any platform because bëgguñ mu def lo xamné dina ko lor wala dina ko duggal ci problème yong marong kol ma wax mako ko pare dina ma fay xaliss motax ñi wax ñu sét dina ma fay xaliss pour ma indi alaaji ibrahima ba ci Gambian Talents mu def programme waxtaan ak askan wi mané ko ni du pour fayma suñ papa suñ mam, this is what he wants to do just give him a platform maak sari yong suñ communication xawa am am am am am lifi ñuy juwàlloo de misante pa ba ngi tok xolam a ngi fess xelam a ngi fess mu ngi am xam-xam bu mu bugg a bu ko siyaay askan wi mënut ko def ñu mujjé naka imam babali di xaritam mu wax ma lu rafet nag mom imam nga xamne ne man moy suma imam ma kuut ko ci gannaaw mu wax ko wax ju rafet ci pa ibrahima ba mu contact ma I remember kerak ma ngi Texas am fa programme si ma don def imam babali call ma ne ma dafa am pa bu mu xamne ne mu explainal ma mané ko am kuma ku ngir affaire am sari yok marom mu ne ma fexel noko joxe programme ku bax la ku am xam-xam la ku bugal lu def la ku buga Gambia la mu jox man digal mom imam nena def jox pa bi opportunity because dina njëriñ askan bi te dina njëriñ institution bi ay réccuwuma mako li ma fa indee de ndax ku njaxlaf ci limo def gom ko continue 24 7 dim mu pa bi suma nomba la ma daayal ko dama tukki dina la kolat it took me a minute and he never relented he kept on calling me bañ waxtan mak mom d'accord ci cadeau ma wax ak njabootam gi yépp around the world pour wax leen affaire programme bi jox leen assurance that his show is geared towards raising awareness on public issues on social issues at the time and we would have stick to that and nothing else and that's what exactly what we did paa bi wàccee nak. comme ni ko Modou Diouf waxee GRTS su ma waxee ak moom ñu def programme mu make any mistakes wala xàmmewu dara ràññewu dara su ma ñëwee moom si boppam suy show bi di jeex moom ay call ne ma how was the show today lan lañ def wrong ak lan lañ mun a improve on su ma waxee mu ne ma kumpa booroo nafaa wartale alin kaali bo nga kumpa booroo ke nga bo ñëw kalama ndax ñàkk waxtaan mooy indi réeroo nañ di waxtaan ci biir week bi mu maa jàngal ñuy waxtaan maag moom mu maa jàngal di ñu xamal aada di ñu xamal cosaan di ñu xamal xam-xam dégg ngeen may wax fii di làkk angale di jaxase olof ak angale keneen yi su may def ak paa bi show put na that discipline in me I barely use any English words angale du ma koy làkk lu bari dinaa ko def ci soose Lum def ci man la mu ñuy ci cosaan ak aada di ñu jangal xam-xam di ñu jangal li fi maam yi bàyyi woon ak niñ daan doxalee la woon démba ak ña woon papi wàccee boppam he takes feedback not only does he take feedback he acts on feedback mu ñàkk ki ñaan nag ma nekk di struggle ak platform bi pour fay bil si pour dépenser fi di sàkku ndimbal ci suma mbokki gambien si ne ñu jàppale ñu yaa ko mbokkoy taala nuyu naa la suma broda Pa Suso nuyu naa la jali siyaatol ngaal konton ak képp koo xam ne yaa ngi seetaan ci jamono ji paa bi dama toog mu dugal xaalis suma account ne ma jëlal jàppale sa bopp pour rajo bi jëlal boole si dépense rajo bi emul si ñaax nañu ne nañ contribute alone but he equally contributes to the te li ñoom Modou Diouf wax Modou Diouf nettali ma ko last week Modou Diouf GRTS last week mu ne mus nañoo dem production ba kaw foofu ca marché ba ñu toog seen caméra bi batterie bi jeex ndax batterie yi dee paa bi di leen laaj ñaata la ñoo fay ci koo xam ne dina jël alalam dina jël isansam dina jël otoom taal jëndal lekka def lu nekk pour production si loo xam ne moom moo ko waroon def ñu koo fay INSET moom moo ci dépense xaalisam ba tey jii loolu laa def ci Gambian Talents ba tey jii loolu laa def ci Gambian Talents di ci dugal xaalisam di ci dugal alelam bine bine nuyu naa la ma mama Soko foofu ca dakaar senegal maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaare Alaaji Ibrahima Ba koo koy moom loolu la def ma ne leen man dama jóge Amérique dem bànjul war a joxe foofu xaalis alaaji Ibrahima ba yónnee ma xaalis from Amérique jox ko njabootam ma dem foofu noonu gars yi jël xaalis bi jox ma ko ma wax dugal tànka dugal loxo mu ne ma soo ko jëlutee ma mere la bàyyi la àdduna xam naa ku nekk Banjul lu muy dem ku nekk Banjul li ngaa daj ku nekk Banjul li ngaa daj ma ne ko maa la war a jox mu ne ma bii man maa ko def mu tooñ ma ne ma sanoo yàlla diggante Pël ak ak ak ak séeréer may sa papa dama la ko war a defal tugal tanka tugal loxo façon teranga bu nekk ñu defal ñu ko ki kerak kon ñu ko gërëm di ko santa ci lim taxawal gambia def yoyu moy di list way pour wone rek ne he leads by example du talk di wax askan wi ne def leen al ci Gambian Talents mom mu bokk ci plateforme bi te defut ci pour bëgg a plateforme bi dem kanam muy def ngir avancement plateforme bi projet bi ñuy def xanaa lum yëgul su ko yégee dina ci def alalam kon waa Mamakotoy wax nañ ci Ibrahima Ba waa Supreme Islamic Council wax nañ ci Ibrahima Ba journaliste yi nga xam ne ñi si ñuñ yaakaar ci réew mi ñi nga xam ne ñooy borom ba tànkaay fi ñu nekk ni GRTS ñoom Modou Diouf ñoo yor lenge yi ñooñu wax nañ ci moom private media house bi ñoom Ibrahima Mané ak ñoom wax nañ ci ñoom politicians a former diplomat ak ambassador of the Gambia wax na ci moom and we will bring you all of these things this is somebody that has contributed a lot Vancouver gim nekk noonu ci jamono jii lépp lu fa xew every week he is very involved with the community foofu noonu di dugga ci biir nit ñi di génn ci ñoom di dem ci ngénte yi di dem ci takkay di am defal askan bi yu bari kon kii pour recognize ko dafa war as a living legend he didn't only do it in the Gambia but he did it in and abroad of course kon ñu ngi koo gàcca nga laamaat di ko gërëm di ko celebrate ndax mag la kilifa la laa kaay seet xale toog na eeg na ci kaw guy lum gisut mag toog ci sajaada ga pare ko gis ko this is somebody that is 86 years old namu dara njabootam yàlla may leen as tuut ñu koo jàppale namu dara du nit war a am lu nit mun a xam ci teraanga ci kaw àdduna am na teraanga àdduna am am am am am and he is proud of that 19 tooma njaboot gu barketi tekki macha allah di ko jàppale ñu am diine waaye askan waa ko ñor mënoon naa seet boppam ak li ko yóbbu kanam waaye suñ askan moo ñor Alaaji Ibrahima Mama Koto kon kooku dañ ko war a recognize with all this over 40 years of service to our country he has never been recognized with even a certificate let alone an award moo ñun at Gambian Talents Promotion we decide we are going to give him an award and moving on we um, have this award called the Gambian Pride of the Year Award and the first receiver of the Gambian Pride of the Year Award is Alaji Ibrahim Mamakoto which of course we would have presented to him on February 18 ci Bankuba gi nga xam unfortunately loolu mun ta xew mun toon a xew kon bo ni gannaaw ëllëg ci samedi gi dinañ nek fofu ci Vancouver Washington nga xamne ne fa la Alaaji Ibrahima Mamakoto dëkka to give him an award a trophy a token of appreciation on behalf of Gambians to tell him thank you for the service you have provided to our country the past 40 years appreciate nañ sa liggey li nga defal suñu dekk rafet na kontaan nañ ci yow yal na la yalla fay manama o nga ma ci guerre mondiale de ndax man kuma defal Terangare mamane ko papa defaluma la dara this is not me this is the gambia that's recognizing you this is the gambia that believes in you dama tak suma xol tay way dama len koy wax sa su nek suma waxe yi dama lay joy because we have interviewed Biri Biri on our platform, our legendary soccer player. We see where Biri is. don Jabot ak mbokam moy lolu mako wax sa su ne because of how our country gave back to Biri, how our country treated Biri, tax na ba biiri toog foofu noonu and didn't do much ñu toog mu dugg ci politics of course ku mel ni Yaya Jammeh obviously use ko to a great extent respect bi mu amoon ci réew mi ñu bari mu drop but if the country was to give back to Biri Biri if the country was to take care of Biri Biri de kon Biri amaana nu mu doon demee du musa toog bay dem di dugg ci politics he would have continued to be empowered he would have continued suñ ko empower woon jox ko lim deserve ak lim moom jox ko di Gambia sports mu toppatoo loolu noonu rawatina football bi mu am ideas am am lu nekk and I'm saying this because dañ interview biri biri mu ne dafaa toog sax dem place gars yi naan ko ma ne bu ñu di stop xewatu leen seen old school lii ak lii ak kii mooy koo xam ne dafa defal Gambia lu ne Spain googu mu doon play football gis nañ ko last year gis nañ niñ ko recogniser ak award biñ ko jox muy this year gis nañ niñ ko recogniser last year oyaat ko mu delluwaat foofu woy yiñ ko daan woyal ñu woyal ko stadium bi mu daan playé feesaa tepp ngir nothing boot gars yi bugg a ñëw ñu de xale génération bi nii dunduñ foofu mooy li ma leen wax ci buñ de suul jëf ci commencement bi génération bi fekke wuñ bu biri biri di play Spain over twenty thirty years ago forty wuñ ko woon su dee juddu nañ ñun ñëpp we all grew up to hear Alaaji Modou Njaay biri biri's name all over the world mu teseeg ñoom Maradona teseeg ñoom Pelé ak ñu bari ñoo xam ne def na ak ñoom ay affaire kii should be celebrated as a living legend mu am lu bari lu mu xam ci sports joxuñ ko ko ñu xañ ko ko mu métti ko ci biir xolam this is biri biri talking su ma nekkoon di use the regular platform I play this interview for you guys to listen to you hear biri biri on our Lumfi Def show with Fatou Samba that we interviewed him three four years ago and you heard what he said xolam la doon waxee Gambia delo wuñ ko njukkal moo tax su may wax ci ñii dama dee jooy su du doon jabooti biiri biiri ñi nekk bitim réew ak ñi nekk ci biir réew mi ah, di ko jàppale réew mi as a country joxuñ ko what he deserve jox ko suñ sports fraternité bi when Bokande passed away, we see what he got, the state burial he got. When he was alive, the later part of his years, gis nañ senegal fi ñu teg Bokande ak liñ ko jox cër biñ ko jox ñoom Bokande yëpp a respecté woon biiri biiri ba tey jii soo demee senegal he's the most famous Gambian foofu kon kooku dañ ko war a jox ceeram mu ngee dunda ba tey it's not too late maa ngi oo on the Gambia government ak ñi nga xam ne Gambia Sport Federation bi football association bi ak ñëpp ñu jël biri biri xëccaat ko delloo ko palaasam jox ko lim moom mu gàgganti xale yi wan leen yoon su ko defee Gambia mun a dem ñaata at kenn du am ko du di lakka ñu ngey dem di indi international coaches yi ñu ngey dem di indi international consultants di indi tubaab yeeg ñeneen ñoo xam ne ñu ngi am lii si suñ dëkka bekkañ ma ne ñu interview waat Moussa Ngom ci lum fi def bi three four years ago ar la bugg ci biir xolam bi musique la bugg ci biir xolam bi bi la bugg ci biir xolam bi ñu seet ni ko yàlla jëlee we did a lot with musangom when he was alive pour war rek leral fofu ko ndax wax naa leen si gannaaw ne jox nañ family am about 70000 thousand dollars is I mean through the gam am am am musangom tribute committee bi mo dunda we did a lot with him the later part of Musangom's years two years before mu réer dafa organised forty years anniversary it was in a success forty years in music it was in a success that's a big embarrassment nguur gi waroon japa. private sector bi waroon see japa. endorsement si ñëw sponsor si ñëw publicity big advertisement bi jóor Mutakar nase. askan wi yeb genna si maire yeeg paa yi ñëw fàttaleku démba bim daan ñëw di toj stadium bi waaw waa gelowaar baan di ñëw toj stadium bi di tukki di dem fu nekka moom ak waa super jamono ñu fàttale ku démb xale yi ñëw gis démba ni meloon mag ñi fekkee xale yi fekkee naka la Moussa Ngom mujjee his family ñu wax ko waxuñ ko ñu ngi am som anga mer ngir ni dëkk bi traité seen papa we wait till people die before we celebrate them ma wax ko ci si man Mansour Ndiaye wax ko si Passet kamara wax ko ci ñoom Laalo Keba Dramé ak ñeneen ñi nga xam ne liggéeyal nañ suñ dëkk defal nañ suñ dëkk yu am solo ñu war a bàyyi xel yi nu mel kon ñun we take pride in celebrating our living legends ku ci dem ba génn àdduna tamit ñu celebrate la sa gannaaw moo tax ku mel ni Musu Keba Dramé nga xam ne am nañ di opportunity moom tamit celebrate nañ ko indi ay jaar-jaaram ak jëfinam ci biir réew mi ku mel ni am am am uh, what you call it am am am am what am uh, alaaj Imam Abdoulaye Diop def nañ biram ci gannaawam ku mel ni alaaji Baabu Sow indi nañ ko celebrate ko ci gannaawam nu bari when they we celebrate them we want to celebrate our people we want to recognize our people for them to feel special and that is the reason why we are celebrating Alhaji Ibrahima Mamakoto kon ndiki Saturday insha allah am ngeen toppañu ci Gambian Talents am promotion 11 pm Gambian time 3 pm Seattle time dinañ leen indi live coverage ak meññanta programme bi nga xam ne maag Pa Ibrahima Mamakoto dinañ ko dee def dinañ leen ko indil of course amin pour ngeen seetaan ko ngeen gis the award that we will um, place in Vancouver, Washington fi nga the Gambians around the world are invited his family and friends are invited they are all happy that their family their father their grandfather their uncle is actually being recognized and given an award after 40 years of doing what he does can you imagine it has to take 40 years for Gambian talents to recognize Alhaji Ibrahima suma day wax ni nak dama joy way tay dina bo suma xol bi li tax maay ni ma ko yàgg dama day put suma bopa in these people shoes because xamna ne niñ def ci dekk bi niñ len Gambia ñoré liñ defal Gambia non la ma Gambia ñoré I am just hoping for the future looking at the future what it brings to us what it's gonna bring to us kon nañ len soppi doxin nañ len raxas xol yi nañ len soppi jikko yi nañ len pare pour liggéey nañ len wañi am am am gi di bañ a bring each other down ñu jàppale wante pare pour offrir each other put the um, crab in a barrel syndrome aside ñu pare pour liggéey wàññi wax ji wàññi wax ji wàññi wax ji ñu pare pour jàppale wante ku si mën a jàppale sa morom jàppale ko this tribalism talk that people are propelling ma la képp ku ko champion you are not one of us képp a kuy jóg di sagan day ay nit di jël benn xeet di leen teg dara you are not one of us let us learn to be civilized You know wax ñu wax ci njekk ak teranga wax kàddu yu set ñu engage each other productively ñu debate ñu d'accord nga convince ma wala ma convince la wala mënuñoo d'accord nga dem lef ma dem layet la kum diine kum walee diin xanaa loolu kay yomba na bi ñu ko yàlla di wax du tey du ko sallallahu alayhi wa sallam di jëfee du tey kon lii laay ñaax askan askani Gambia let us be civilized ñu engage each other productively kon ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen santa this was just an introduction to Alhaji Ibrahima Mamakoto pour wax leen moom mooy kan ak jaar-jaaram ak ñi nga xam ne liggéeyal nañ Gambie ñenn nañu ci ñoom lëf ci ñoom pour ñu fàttaliku leen fàttali li nga xam ne moom lañu defar réew mi te kat dañ war di recognize suñ kilifa yi dañ war di recognize suñ borom xam yi dañ war di recognize suñ jiit yi di leen jàppale pour ñu mëna def seen liggéey ak li leen yàlla sant ak li nga xam ne moo leen war ci ñun ci jàmm ak salaam ci njekk ak teranga ñu ngi leen a jéggalu nag lépp loo xam ne wax naa ko fi rek ci lu ñagas suma di la lépp lu si rafet si yàlla di leen ñaax ngeen vidéo bi ndax li fi wax am solo man suma boppa wax naa ko dama xam ne lu ma wax dafa am solo dama ko wax ba xam ko man suma boppa ndax daf ma ñor moo ma ñëw toog fii pour wax ko so kon su fekkee ne yu apprécié su fekkee ne am na benn kàddu bu ma fi wax boo xam ne njëriñ na la wala fiil nga ne mun naa njëriñ askan wi foofu la war a dooree not to wait bay soxla comme ni ma ko dee waxee saa su nekk dinañ toog ba soxla ñu ñu door ñoo kool ne ñu nangam ak nangam ak nangam yaa yéen ngee def lu nice dama dee seetaan sa vidéo yi dama dee seetaan seen suus yi li yegg lii su ma broda dafa taxaw nga jàppale ko déedéet su ma rakka daf dee wóoy dama bëgg nga jàppale ko su ma ñoom oncle dañ dee théâtre jamono ji dañ génnee cassette bëgg nga defal leen su ma rakka dañ ko daaxa school fees wala dafa am medical concern mu war a ñu abroad ma bëgg ngeen set up a GoFundMe account a lii a lii ak lii jàppale ñu jàppale ñu soo demee ba soxla ñu si nga I tell them you can contribute financially contribute financially page bi su ngeen fa duggee rek di ngeen gis donation tab bi go there and click di donation tab lu ngeen fa mun ti def rek yàlla dina leen ko fay ndax programme yi ñoo def ak ñu yónnee xaalis Gambia dinañ ko fa mun a jot képp ku ngeen ñu jox contact am rek dinañ ko mun a jox wala ñeen ngeen ñu ko gars yi foofu noonu dina njëriñ suñ team bi foofu bi ba programme si ngeen bëgg ñu indil jàppale nga xam ne ñu ngi koo jàppale back way returnees ak yeneen xale yooyu yëpp dina gën a yokk dinañ leen mun a jox ab macaat dinañ leen mun a proviral yenn opportunities yoo xam ne dina tax ba gars yi gën a njaxlaf gën a sawar si liggéey bi nga xam ne ñu ko sombi ak ñoom incha allah ak ñi nga xam ne ay school drop out lañ nga xam ne duñ dem di toog ci mbedd di tàmbaambalu du ne xam-xam rek lañ fay jëlee waaye dinañ fa jëlaale faygu takku goo xam ne kat dina leen motiver ñu continuer def li ñoo def kon su fekkee ne mun ngaa bul toog foog ne dañ la war a contact individually pour nga def ko soo amee sa one dollar ni ma koy waxee saa su nekk mënuloo see génnee fifty cents pour joxe ko nga am naka soo amee sa fifty dollars kon mënuloo see génnee fifty cents joxe ko fooguma di nga dem ba am million di si génnee and that is the average Gambian nature ku nekk dafa xalaat ne li ma am dafa tuuti mënuma see joxe mënuma see yokka te fee joxewuloo yàlla du la yokka so kon jox leen ñu ngeen jàppale ñu financially click on that donation button and put a dollar two dollars five dollars euro pound yen. We don't mind what currency, wherever you are. At least by the time I finish this video, Nico Setan, Kusine Kasujoke won one one dollar or pounds or whatever. one, you will have seen how much money we can make and how much we will be able to transform our platform into what you want it to be. engage in the show si ñu kaas ne ana show si gisuñ la tax dem show ana sentiment show ana Celeb Avenue ana lii ana lële all the programs that we should bring for you lu gambe du dem help us so that we'll be able to bring you these things that's what we love to do help us to be able to bring all our programs and activities for you lo xamne dinañ ko indi ne professional manam mu tax liggéey bi dem kanam kon ñu ngi leena ñaax ñaaxtu ngeen jàpp si loolu donate financially su ngeen ta donate financially share the video dinañ jëriñ keneen wala keneen mun na faa gisit ba tax kooku donate keneen mun na faa gis ba tax mu jàppale ñu business si ñëw leen ngeen advertise ak ñun ngeen sponsor suñ programme si ak yi ñoo def ndax am na solo te da ngeen am li ñoo ooyee corporate social responsibilities seen corporate social responsibilities yooyu one of it is giving back to the community come and give back through us because li ñoo def am na solo te soxla nañ ci seen dimbal ak seen jàppale pour ñu gën a mun a jàppale askan bi di leen éduquer ndax éducation la suñ réew soxla a jàngal réew mi su ko defee mu dem kanam kon ñu ngi leen a ñaax ngeen jàppale ñu financial yi ñu ngi leen a ñaax ngeen share these videos ñu ngi leen a ñaax ngeen di dugga ci suñu programme si di like li ñoo def di comment si li ñoo def tax loolu dinañu motiver pour ñu gën koo mën a def ndax nag dooley jën ndox te kuy dog dog it a tàkka kon mang begi, leen a excuse me, ngeen baalal ma rek mang begi leen a bëggee di leen gërëm di leen sant si topp bi ngeen ñoo toppa Salimata Ndoye maa ngi laay bëggee bu baax a baax a baax kontaan rek am Jesus Konka jërëjëf amin ñu ngi begi bëggee bu baax Mama Sonko nuyu naa la comme ni ma ko waxee Amu NCC nuyu naa la Yaasira Suso nuyu naa la Ousmane Boyang nuyu naa la Pa Suso jali Yaatol mang laa nuyu bu baax ak képp ko xam ne nga doon déglu di ma seetaan rek ci jamono ji This is to recognize Alaji Ibrahim Mamakoto and celebrate him as a living legend by Gambian Talents Promotion ñu ngi leen a bëggee leen gërëm leen santa incha allah si kanam tey rek bu leen fàtte Ibrahim Gaye is coming we have a lot of new programs for you Ibrahim Gaye will be coming with his wall of news si kanam nii rek nga xam ne mooy xibaar yi lembe réew mi Fax Touré will be coming with Alpha Lakumo and Nkuluwa pour suñuy mbokki soose yi nga xam ne bugga nañoo déglu di seetaan loolu nga xam ne mooy Alpha Lakumo and Nkuluwa 5 pm la Gambian time Fax Touré dina ñëw Ibrahim Gaye dina ñëw with the news at 6:30 pm Iva Sarr dina ñëw ak xew-xewi jamono at 8 tey muy invite nag suñu yaay Anti waxoon leen ko borom Yacine Kitchen muy togga togga yu neex mu ñëw waxtaan ak askan wi ci affaire yi togga yi ak challenge challenge yeeg ak of course foundation bi nga xam ne ñu ngi ko def di distribute ay iftar am ci biir weeri koor bi kon ñu ngi leen a bëggee yooyu ñooy programme yi tey yi ëllëg suñ xale yi dina ñëw with the youth Bantaba show muy Oumy Jallow of course ak ak ak ak ak Mariama Cham dinañ ñëw with the youth Bantaba show everybody mbay dina bugg di indi programme yi ñawoon démba we have a lot of programs lined up for you and stay tuned like our page if you didn't like it before Gambian Talents Promotion subscribe leen to suñ YouTube page toppañu on Wazi TV ngeen dem subscribe to Wazi TV ngeen ibi platform si ñoom ñu ngi leen ay bëggee approve services jërë ngeen jëf su ngeen bëggee yónnee xaalis to the Gambia wherever you are in Europe America or otherwise in Angleterre contract approve services ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax di leen gërëm di leen sant ba beneen jamono